Oh, bul forcer ak soo songale na ko songale na ko daan na fuuf doole. la ilaha illa ba tey mbokk yi li ma wax rek ñu ngi ci journée bi nga xam ne moom moo war a am fii ci le 4 janvier arène nationale Mass Jolof Events tëgg may combat yoo xam ne bu jàll rek da nga naan bii doyoon na grand combat ma ñëwaat ci beneen combat boo xam tey ñoom ñaar bi ma ñëwee ñoom laa fi njëkk fekk ñu kenn ku di xiiru sa morom kenn day mbooli de ah day boo ko leeru partout day daw rek fa laa jaar sax nga présenté wu waxee yow la kan non jox ko ca bisimilah commencé à droite Baye Fall nuyu naa la. maa ngi ziar monsieur Bilal mi seetaan rëy bisimilah rahmaani rahim. ginnaaw bu ñu santoo yàlla juru ci yoon bi sant suñu ñaari waajur. mu ne Deeku Kirij ah école de lutte Balla Gaye. waaw bu dëgër bi boobu bi. mooy si ñaata combat. bii mooy sama euh, septième combat. ñaata victoire. am na cinq victoire benn défaite. bii mooy sama sixième victoire nag incha allah. sixième victoire te bëreegul Kirij dafa mel ni da ngaa ñëw pour Kirij sa waay de. non loolu loolu biti fanaan kii maa mën man kay leen rek bu mu daw rek xam naa nag damaa xeeb ci ay bët mais dama koy ñaan rek combat bi bu mu yàq combat bi. ko war a jàppale. léeg yow yàlla laaj ko nan nga dara jëlee man daal dund daal. dinaa ñëwaat si yow. ah yow de. kii moom nag man na fekkee naa camion paal. kii la ci yëkkati sànq nag song naa la nga dem kii bi am na kii bi ndax yaakaar ci defee ci defee ci dimanche bi dina neexee lu si def suuf bu waa di yóbbu ñu bàyyi la ko présenté wu. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bu ñu sant yàlla si yàlla sa kaw sa kaw suñu di siyaare ak di bëggee sama doom dañaa ngañ vraiment doom jaar naa nga xam ah, nga di liggéey waa grand yi waa Massa Moussa Seck Mass tey suñu dem grand yi fay defee. waaw yow la kan. man yow maa ngi gàllankoor kenn moo présenté. d' accord mais ñii seetaan pour ñu mën a xam exact kii wax kan la. waaw man li mooy sa ñaari combat. li mooy sama cinquième combat. waaw victoire nga daal ci koo xam ne tey nee na boo xeexee loolu la nga daal soo bëree ñu jàpp daal la ndax. allo. suñu kenn du yow. ah. signalé ko non lii doo ko am kon ci loolu. ko ci doon taawal wala dafa dafa doon nga yàq liggéey jàmm. man dem nañ maa ngi dem mais xaw ma sama micro pour loolu la. dugal naa rek. test naa nag koo bàyyi ñaar ñëpp taxaw dëgg ko wax incha allah le jour du cas le quatre janvier da sama jàll sax naa xam nga yàlla nga xam lu may bañ le quatre jot ñu ñëf di bëre ngeen fii di sàmm yaa na ngaan jëbali nit ñi gée kenn ku nekk wax na moroomam koo taxawalee da ngeen fexe ba kuréel li mu wax na ko sàmm ndax àdduna ngi leen di déglu te nit lu mu narul bu mu ko wax nga ne bu taxawee ko baax du bu taxawee ak bu ñaata taxaw loolu aw man mu ñëw fan ci bi ah dana ñëw. ah tàggat ñu loolu yow ah. ah. man kooku mu toll nii moom mooy mooy a kii a si ginnaaw kii moo a noos ñu déggoo ma la sama njëkk bu ñu combat bi ma ne fii nga ne dina taal bu ñaaw bu ñaaw la ak mo ma ne bu ba ma ne bu ba yaa seen mbokk am na taxaw a déggoo ma ne yow bi dugg fii nii inshallah mu dugg fii mu dugg fii nii gan léegi jegante leen ngeen seet. du yaakaar ni numéro 2 bi nga laajte mooy Delta. man solo may laajte waaw dama bëgg nga xam rek. man solo may laajte man maa ko xam naa laa yore dama lay dóor man bii di yooyu de bii crise bi la bu dëgër. crise bi yow crise bi daaw bi dama la yëkkati boo amul sens yow dégg nga ne boo amul sens dama la yëkkati te li defaat mooy mu toll nga daaw maanaam leer nañ. mais xanaa da ngeen ay laaj ko baax kooku mooy dugg dégg naa. waaye déggoo ma ne boo ko leeral bi day fly rek. waaw du dow dee. Ah, boo ko leeral bi day fly amul aéroport amul escale. fly ci fly kese. biir biir bi la ko dëgër bi di yooyu dafa mu diis bi dama ku yëkkati bi kirij bi la de dama fi la ak ak woote kirij bi la ak xéer bi yëpp woote woote ah? drapeau bi drapeau ki ñu ko tuddee sunu sunu confrère muy Jimbori muy koo xam ne moom tam yaakaar naa ne mérito la sax lu raw lii jàmbaar la mi ngi nit yi am solo moom tam ñu koy félicité d' abord jimboole ñu ngi ñaan sa drapeau bi yàlla nekk ay trente-cinq édition ah ñu ngi la ciy félicité di ànd ak yow nag parce que nag yàlla ah, liggéey nga ci média loo xam ne war ngaa mën a am drapeau suñu jiitu bi ñu ngi lay félicité jimboole waaye yéen a ngi bëri drapeau boo xam ne drapeau bu bari coow drapeau boo xam ne drapeau pukki drapeau boo xam tey ku ci feeñ dootoon nëbbu bopp faw waaye ku ci ku ci daanu sa dër nga yàqu sa dër nga yàqu. ay drapeau ji bëri ko daanu. drapeau ji bëri ngeen di bëri. yow jël naa su bëree mu neex su baaxoo mu neex mu def day neex su ma ñëwoon taxaw sax day neex. dégg nga ma ñëw taxaw. man xaaruma si dara man xaaruma si dara dégg nga ma ne man xaaruma si dara xaaruma du ma la xaar si dara dara laa la si waaw. yaa ma dégg yow taxawal rek. yaa ngi sàrde sa boobu de. dégg nga ma de. biir yooyu de lu leer laa la ko jël dama lay wax rek waaw dama lay wax rek. kon dama xamul woon monsieur Mawla xeex xam nga xeex da ngay ak sama bopp. da nga ma fekk mu taw bu dóor ma fekk loxo bi jàpp daan. ah daan laa seexal moom jàpp daan laa seexal moom. mais loolu yow du ma loxo bi jàpp daan. loolu nit ki bëri xanaa di xool ndax naa xeexal moom. dama laa ah, si nga jaaw li ma xeexal moom di jàpp daan laa seexal moom. benn tas sa waay man xaw laa xaw la xeex daal. man mosuma am combat ci waaye kii kenn war koo xeex. dama ko am man mosuma am combat mais à chaque fois su ma amee combat dañuy daw waaw. te incha allah dama ko ñaanal moom mu ñëw dëgg mu daw benn côté. incha allah dafay dàq ko mais sa waay dafa incité ci nga dëggal sa bopp. loolu laa ko ñaanal c'est que moom moom laa koy wax. kaay leen ngeen jege si leen jege si leen ñaan ngeen jege si leen ñaan ma xool. waaw si baax na sama xel lépp. sax wala naa def loo xam ne. bii dégg ñu naan mbaam bii dégg ñu naan mbaam arrière la bañ. mosuma gis sama làmb si ànd nga man ma arrière man ma sa arrière man di ma arrière yow yaa si ma arrière yow ma arrière la yow yow yaa si ma arrière am bi si la ma pèse loxo jàpp la jàpp daan naa yow maa yow suma yow ay léew am dégg ma maa lay fekk si nga nekk ma jël la arbitre la wax leen rek dégg ma mais li baax di wax rek. barke Alxuraan d'accord jërëjëf waaw ne Issa bi adoo xool. waaw moo tax ñu nekk woote xaalitu la nga jàppaloo woote woote woon la jàppale ci biir ndax soxla nga ku la jàppale rawatina ki tuddee lamb ji muy jimboor yi bi na leen jàppale wooteel gaaw. di di nuyu Fallou Ba Koulé waaye yooyu ñëpp ay président waaw dañuy commencé naa tourné. te semence bi ñu mën a jël de man damay liggéey de. di woo tamit waa Bawol. yàqoo si yow waaw yéen sax. maa fàttee def affaire bi moto ak yoon quoi. waaw bu paree moto bi ma def comme. mais bu boobu laay dugal si. Hmm? lii ma. donc da ngaa war a am ay kaay yu doy waaw bii moom buy na ko fi mais kaay kaay ci laa leen. waaw waaw jàppale leen xale yi nag yéen autorités yi nekk ci gox yi jàppale leen xale yi ñu mën a kaay yi jënd jëy na ñëw parce que ay xale lan tam soxla nañu jàppale. à chaque fois ci kaay laa ñu ndax boo yëgee ay ay jërëjëf dañ la ko gis rek mais à chaque fois yéen ay sax gis ko gis rek mais loolu moom dafa kaay loolu yëpp dafa problème ci suñu leen benn sañ ko waaw ñun ñëpp ñu ngi jàppale kaay carrément xam nañu ñoo soxla dëkk moo soxla village ñoo soxla te ñun ñun dañu ñu ñu dañ koy def incha allah te di waat waa géej waa géej waa Colobane ah di woon ak waa Colobane bi bàyyi na teel waaw bépp bu wax waaw ñu xool nag yàlla rek maa ngi woon suñu tey di waat tamit Bamba Sénégal Aliou Sall dugal di ko dugal ci biir ko kenn dugal moom laay li des nag mooy dañuy bàyyi ba après ko daal la moom gën oote yow waaw man nag bàyyi woo sama waa gaale laay ci loolu di wax woo sama waa koy sama gaale wala mooy ñëw koy waaw waaw moom laay dëgg woo waaw woo sama waa gaale woo sama waa koy di woo la sàmm si sa tee du grand bàyyi woo ñëpp grand boo bàyyi ma kenn di woo waa jaay sur mer waaw maa ngi woo baax di woo waa Waalo waa Samb waaw Waalo yëpp maa ngi la woo waaw Waalo yëpp maa ngi la woo maa ngi woo waa Waalo surtout nag sama dëkk bokkal waaw bokkal maa ngi woo bu baax a baax waa Thiago Diagne maa ngi woo bu baax Waalo Waalo la kenn jëm naa ne li ñu dégg lu bëri muy wax nee na seen dëkk daal ñu def ay kaar ñëw man dafay wax ngeen préparé li ñu wax ngeen ngeen ko ngeen def lépp préparation bi lépp ngeen ñëw incha allah le 4 janvier incha allah lëkkaat doy xew. daal wala bëri. kii bu góor taxawee wala góor daal bu bëri yàlla daal bu daal. lëkkaat doy woo. tey kaay kenn moom ci man. maa ngi woo ci combat bi. kaawal combat bi yow laa ko bàyyi leen. combat bi sa combat la nga jàpp ci. xam nga di jàpp di woo ñoom waa ji Ndoye Ndoye Niger maa leen woo bu di woo sama grand frère yi waa koñ sama gars yi waa Fresh Boy maa leen woo ci combat bi bu waa Frère de sama ami d'avance bi waa Bombal maa ngi leen woo bu baax a baax ci combat di woo waa mbaar mi sama gars yi sama topp yi maa ngi leen woo waa mbaar mi Diop Delta gars yi maa ngi leen woo di woo Sow Maly di woo sama gars yi daa xam ne fu ñu liggéey dund. waaw di def ko teg ci kër ba léegi moom nee na koo xeexal bu xew la xew. woote doo woote wala doo. léegi la d'accord la kaat luy xew déedéet da la woo xeexee bu doon la luy xew la kaat. waaw. d'accord d'accord d'accord li xew la kaay. boote woon nag waaw ci xalam yàlla na yomb xam nga lu ma wax maa ngi woo ko fi di bokk ñëpp waaw bokk seen tur bi maa ngi woon combat ngir yàlla na fi ngeen jàppale seen bopp su ko ak ci kanam dama sama loolu xew yi ngeen jàppale ci combat ñu ñaan ci boîte bi ci jaay delta am ngi ci seen kanam leen ñaan ngeen jàppale ci combat bu baax a baax nga xam ne doon te dem leen yéen ñaar dem leen dem leen